94 Walf Sénégal dellu si di leen chair di siyaare mboolem kuy toppal 94 Walf Sénégal chaîne analyse chronique yi nga xam dañ leen koy defal saa nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen siyaar nañ leen woy leen di topp fal 94 Walf Sénégal leen naan daraas daraas jaak xatar xatar jaak waaxu rek fenn kenn ku ci nekk yaa ngi xool foo jaar pour dem loolu nag mooy euh, ku nekk xam ne ne événement bi dafa nekk événement boo xam ci Sénégal événement bu yaatoo yaatu la ndax kenn ku ci nekk yaa ngi jëm ci barab di jëm ci say wala di dem ci say mbokk ngir euh, saafonte jeeg moom jàmman euh, nammonte jeeg ak ñoom voilà su ko defee nag ñu xam ne màggal gi kon Euh, commencé na màggal gi commencé na màggal gi commencé na yi nag nekk na li nga xam ne nii voilà gis nañ ne nag autorité yi ñu ngi dem di ñëw wala yaa ma gën a xam ñoom moom xam nga Touba moom daanaka mën naa ne ba événement bi ñëwee voilà nit ñi dañuy jóge fu nekk ci barab yi eh, fasanti koy nekk ci àdduna bi yëpp ñëw di siyaare ci fii di barab bi di Touba wala ñii nag eh, jënd seeni eh, nag ñii jënd seeni xar ñii jënd seeni ganaar ñii jënd seeni bay wala ñuy jënd seeni wala maanaam xeeti lekk yu nekk rek maanaam su ngeen ñëwee dañ ko fii gis wala kon nag yaakaar naa ne màggalu moom dara du manqué leen naan dara du manqué da ngay gis gars yi dañ leen di berne berne berne ba maanaam ñoom ci seen jëm bopp bu ñu mënee daw dañuy daw maanaam kenn du fi jooy yàpp kenn du fi jooy fruit kenn du fi jooy dara ndax mbengeen yeeg jaañeen yi moom bari na ñoo xam ne moom bu ñëwee màggal moom loolu képp leen fi indi waaye di leen ci boole xasida yi di leen ci boole jàng alxuraan di leen ci boole si ay sikurulaa ndax wax dëgg yàlla loolu baax na ci lool lool lool lool ndax loolu sax moo war a jiitu waaye nag eh, bu ñu defee loolu ba noppi nag mën nañu xéewlu bu baax a baax a baax sant sunu borom bu baax a baax a baax a kon nag yaakaar naa ne eh, màggal gaa ngi noonu yaakaar naa ne bari na ay autorité yoo xam ne ñu ngi dugg ci biir dëkk bi di siyaare di delluwaat dëkk bi na commencé naa xat ndax nit ñaa ngi ñëw voilà kon ñu xamee ko noonu bu baax a baax a baax 94 Walf Sénégal lii la leen indi